salaamaaleykum. naa def. maa jaay. man maay booy jaaru. Mm. waaw waaw. ku la nag gisuloo ko Sylvain la dañ ma ko yónnee. Mm, gis jaar. jaaru duñ benn duñ benn gis nga bii. Mm. ak bii du benn bii silva la man dama jaayu dara depuis suba maa ngi toog nii. non man sama njaay. non man sama njaay man sama naa la koy jox sax nga jox ma weer ma ñëw jël si amul problème. lebal waaw. jaar bi foog ma dina ma xëj de. romb naa fu bari waaye yow laa ko yéene yow laa ko bëgg a jaay waaw yow laa ko bëgg jaay testeel nga xool. fesal. moom sax dafa rafet di. waaw dafa rafet waaw. rafet na waaw jógal taw jógal jógal ñaata nga fi waaw xaalis laa wax xaalis maa ngi amee CFA. CFA bu ma wéeti pour waroon a dem Sénégal uti bagage. jox ma ana mobile bi. seen kër sori na fi. mobile yi fa nekk yëpp nga isil ma ko. demal. waaw waaw. xam nga lan moo la wax nga jóg bul jóg tëddal man tëdd laa waaw tëdd moo la waxul jógal bul jóg waaw man lan moo xew fii way sama ndey ku ñëwoon ci fii courage yu ñëw fii jaay ma jaaru bii suma xaalis bi suma mobile bi yëpp laa ko jaay yëpp la yóbbu eh, eh, eh. mbokk ñoo ko gisandoo lii xew nii mën na laa dal yow mii di seetaan